والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتابعيه ورضي الله عن جميع المقربين وتابعيهم من أصحاب اليمين من الأولين والآخرين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 TV ak etu Maodo ci ndigalu COSCAS président COSCAS moom Ousmane Samb ñu santoon ñu indi ci daara ji jàng jàngindu daara merci bi nga xam ni sunu bàyyi Serigne Alioune Guèye moo ko def jooyee ko sunu maam Seydil Hadji Malick Sy defe ko façon boo xam ni it tabaarakallaahu luy manaaxi bi góor ga ñoom ñu doon dundandoog moom jikkoom yu tedd yemu jikko woon yëpp feeñal na ko ci moo tax ca mujj ga muy wax ni dama indi leeral gi ngir muy seede ngir generation future yi kon ñun ñoo moomoon téere bii ngir buñ ko jàngee ñu xam ci kan mooy sunu maam Seydil Xaaji Malik mag mi nag da cee wane ci njëlbeen gi dëgg rek kawe bu kawe daara seydil xaaji malik ci ëdëbul arab maanaam ni arab culture arab nañu daan nañu ñoom arab yi nañu daan liggéeyee seeni woy moo di nit dañu daan def xazal pour entraîner ko seen xel ci ki ñu bëgg way ñu mën a ëgsi ci moom bu ñu ko daan def dañu daan jooy lu mel ni gent mooy fu ñu daloon ndax ay nomade la ñu woon arab yi peuple nomade la woon dañoo daan dal fu naataange am ngir seeni jur ndox bu demee ba amatul ñu toxu ba bari nañu lu ñu koy jooyee bu ñuy fàttaliku dëkk ba ñu fa dëkke ak di tuddi jigéen ñañ fa dëkkandooloon di lay yëgal ni seen jàng kawe na mooy ñoom mag ñi mooy ku ñuy wax turfatu bnul abd al bakri ngi doon dund li jiitu yonent bi ci jaahiliyeel ya diggante 543 ak 569 bu du juddu seydina muhammad milaadi la doon dund ginnaaw diine ji mu ngi ñëw six cent et kon xam nga ni moo jiitu woon seydina muhammad moom jarbaatu al mutalammis la beneen waykat héritier la dafa yàqoon héritage alal ji yëpp da ko yàq ngir tabe amatul sax fu mu dëkk di wëndeelu rek moom tor moom ba dajeek amru ibnu hindin ki doon buulu xayra mu tagg ko mu dimbali ko jox ko alal ginnaaw gi ñu rambaaje leen ba mu bañ ko mere ko tëkku ko joxe ndigal ni nañ ko rey lii shaair la woon maanaam poète la woon boo xam ni ci shuara ul jaahiliya la bokk bu ñuy wax poète yi jaahiliya yi livre biñ ci dajale am na ci boo xam ne juróom benn ci les meilleurs lañu fa dajale moom ci la bokk boroom mu àllaqa la mu àllaxa parchemin la daan doon boo xam ni boo mësee bind xasiida bu rafet dañ koy bind ci parchemin dem aj ko ca kaaba ga kon ci boroom mu àllaqaat la bokk mu àllaqam ba la mu tijjee woy wa mooy li xawlata atlaalun bi burqati sahmadi taluuxu ka baaqil washmi fi zahiril yadi ñoom noonu lañ daan duggee ci seen way muy jooy gent ya ak xawla mu ni sama xawla mi de turu jigéen am na at laalun ay gent gent mooy fu ñu daloon ba jóge fa nee ay nomade lañu wax mu ngi ko amee woon ci place bu ñuy wax burqatu sahmat burqatu mooy suuf su am xeer mooy un terrain sahmat nag nom propre la buy désigner terrain rocailleux ba ci fan la nekk ndax arab yi burqa yu bari lañ ci am de cent am na ci bu ñuy wax burqatul asmaad burqatul ajaawit burqatul ajdaad burqatul sëhmat bii ci la bokk sëhmat benn place la kële def ni taluuxu gent yaa ngay feeñ nga gis leen mën leen reconnaître ka baaqil was mi ni ki fuddan bu ñu fuddan ba dindi ko desit ja fi zahiril yadi mooy ni danga koy gis mais day maase kon du woon genti ay kër yu ñu tabaxoon emplacement ba daal boo ñëwee di nga xam ni fii la néeg yi nekkoon tant yi fii la jur gi nekkoon fii doon wanag bi ainsi de mag mi nag ni man tey duma def xasal li arab yi daan defee xasal yëpp soxlawuma ko moo tax moom mu ñëw ni wada anka kële da doon wax ay xawlat ak dëkkundaayam ya mu ni ko fàttel at laa lan gént yi nga xam ni yaa ngi koy fàttaliku bi burqati sahmadin ci burqatu sahmad gàttur fa doon wooyee li xawlaata ba mu nammee xawla ma bàyyi tawsafiha di melal xawla bi ka ismadin ci lu deme ni ki pimpi al ismidu mooy xeeru tusngal buñ ko dindee pimpi la tudd mooy lu ñuul liñ ciy jële di wax naan moom xawla da ko taaroo it bàyyi ko bul yem ci bàyyi li tur fa waxoon li arab yëpp waxoon bàyyi ko ndax am na umri ul qays ci ñoom la bokk moom ca waayam ni diyaarun li hindin wa rabaabi wa fartana daarun li hindin والرباب وفرتنا واللميس قبل حوادث الأيام الأخ ni maa ngi jooy kër yoo xam ni hind ko moomoon ak rabaab ak fartana ak labisu jëkk changement fan yi di indi li mu mujj indi ba gental mag mi it di la ni ñooña xamoon naa ñuy jooy loolu mais yow bu mu la ci fet wa maa bu fi nekk di seet waxul nan laylaa ci jigéen ñi ñu daan woy ngir def gazal la ak rabaab ak fartana ak hind ak salma bëlha rawatina lay firi surtout nag salma ak mahdet tur yooyu yëpp turi jigéen la yu ñu daan defe raza mu ni yow tey soxlawoo ci benn wada anka bàyyil zikra ayaami siba ayaama kuntu raqiya balin fi zurahadi bin alayya muwassinin wa muwassidin jaak di fàttaliku fani ndaw ya nga xam ni dañ ko doon dund ci neex nee na bàyyi ko wala yaaliha ak guddi ya wadda bàyyil zikra anka wallis yow fàttel tazkaaral maxaani fàttaliku gi nga doon fàttaliku këri noosukaay la almaxna mooy kër goo xam ni naqar amu fa lépp bànneex la mooy këru noosukaay borom kay wax ni saruuj mooy jannatul dunia daf ni man raaha qaala magna jannati dunia saruuj maanaam sama dëkk boobu ku fa gis daal di wax ni këru noosukaay gi ci àddina mooy saruuj nee na bàyyil zikral ma tazkaral magaani di fàttali ku këru noosukaay ya nga xam ni li xurradin ay jongomaa ko moomoon ñetti baytu yu jëkk yooyu ci la dàqe xasal moo ne moom la def xasal dugge ko ci way yi de mais li arab yi daan defee xasal yëpp daf koo sànni ni am nga lu la gën a motiver tey pour nga mën a way ñu ni ko loolu lan la mu ne walakin dalay doy tafakkar nga xalaat kayfa dijaatu sayyidi la daa rëw dihi wal qadbu ashgala andadi mu ni walakin li ma lay sant mooy tafakkar xalaatal kayfa dijaatu naka la tëddin bu tedd bu rafet ba al filatu mooy jëfin mooy façon ba Maodo tëdde façon ngam bu sell boobu nga xam ni sama sang tëdd na ko la daa raw di xii ca raw doom ba ca bàmmeel bala nga xam ni jardin la wate bañ ko fay tëral al xat bu nit ñi tey war a tàqaliko ak moom suul ko ci biir bàmmeel achaqala booba occupé na nit ñëpp an dëdin ba kenn xalaatatul mbóorat kenn xalaatatul caaxaan walakin bu bëggee way tafakkar xalaatal kayfa dijaatu jih bisin naka la tëdd tëddin bu tedd boobule ki nga xam ni sang la aljih bisu du sang rekk aljih bisu mooy koo xam ni dafa boole xam ba pare am esprit critique الجهبزو موي النقاد القبير الكريتيك وقمني إلي إكسبير نينا خلاتل نمو تدي سنو سنگ بابو نغا قمني كريتيك إكسبير حبيب كو قمني سبل خليل الكل وخو ما سبب ما انتم لنجير نيب barrin koo xam ni ku baax la jëme ci ñëpp mursidin ko xam ni aji gindi la ñépp walakin tafakkar kayfa dijaatu muhtadin bu dee muhtadan da nëbb bihi li tax mën la mu tëddan mooy li mu melal ci ginnaaw gi ni ka naj mit jaa ba mel ni biddéew bu nekk ci lëndëm bu déewul lëndëm dañuy gindikoo ci moom kon muhtadan naka la tëdde kooku ñuy gindikoo ci moom ba xam yoon ka naj mit du jaa ni ki lëndëm moo gën a mën a gindee ci guddi biddéew badriha day mel ni weer wu mat sëkk guddi almutawaqidi boo xam ni aji leer nàññi la walakin boo bëggee way tafakkar xalaatal kayfa dijaatu muxtafan bihi sunnatal haadi nabiyi muhammadi ngir nga xam ni muhtadan ja bihi la woon dañ koo dagg fii muxtafan bihi la indi kon walakin mu ne bu bëggee way tafakkar yamal ci di xalaat rek kayfa dijaatu muxtafan bihi naka la selli nu tëdd ni kii nga xam ni ci moom la ñuy roye sunnatal haadi sunna yonent bi nga xam ni mooy aji gindee النبي كدب يلنت محمد صلى الله عليه وسلم ولكن جرول غي غزل تفكر خلاتل كيف دجعت والد رؤوف رحيم كاشف الغم منجد ولكن لغي لف تفكر بو بغي dawalal sa xel ci kayfa fa dijaatu walidin naka la tëddinu sellu tëddinu kii nga xam ni wayjur la woon raufin ku amoon ñeewent rahimin ku yërëmoon njabootam kaashifil xummi toujours mu daan wuññi seen njàqare mun ji din mu dan leen xettali ولكن تفكر كيف الدجعة وارث أبا الفيد قطب الأولي ابن محمد دنگ لي ما ولا ولكن تفكر كيف الدجعة وارث مي مضاف abil faydi di ci mudaafun ilayhi qutbil awliya ibni muhammadi muhammadi mu ni walakin yow kañ ni ngay def muy tafakkar del xalaat kayfa dijaatu waarisin naka lay nekki tedd nga tëraayu koo xam ni aji donn la abal faydi dégg nga boo nee waarisin ismu faa'il lay doon bu làq abal faydi di mafuulam wala nga def ko waarisi abil faydi def ko mudaaf ak mudaafun ilayhi mudaaf mi laaf mafuul bi waarisi abil faydi boo nee waarisin bi tanwiini day jëf-jëfu fiil abal fayli maf'ul lay doon xutbil awliya ibni muhammadin walakin tafakkar xalaatal kayfa dijaatu muslikin naka la tedde tëraayu kii nga xam ni bi muy dund moo doon sóobuloo ay taalibeem tariqa kiraamil qawmi tariqa bi nga xam ni ñi tëdd ci nit yàlla yépp mooy seen tariqa mu dugal leen fa saafin muy aji sellal ñim fa dugal muzahidin di leen aji dëddloo àddina بصبع وصليا يا إلهي وجزيا